ànduñu si lii suñu yoon nekku si ñun maintenant dañu defar ba mu nice bëgg am jàmm salaam booy xeex da ngay dem fi nga dëkk nga xeexee foofu mais bu leen ñëw ba maintenant bëgg saltel di fi xeexee di saltel fii dañ dem fu ñu dëkk ñoom ñu xeexee foofu wasalaam suñu yoon nekku si ngeen di xeex ngeen di xeex nga la fa laa jëm sant la fool nday nga am fa laa jëm fa laa jëm fa laa jëm eh fa laa jëm eh da nga naan pusal eh Oumar Sall la. xeexi ji leen dey fi ngeen dëkk dëkkoo leen dey fii. maintenant dañu ko def ba mu naaj bu leen ñu koy yàqal maire mi naan dafa liggéey fi ba mu rafet soxla ñu ko ñu koy yàqal bu leen ñu yàqal ndey sunu suñu commune bu ngeen di xeex ngeen ñàpp seen ndey xeexi ji fi ngeen dëkk ku fi yëngal ñu ubbi seen la fool ndey mais mais Bamba mais moom moom nekkul euh, si euh, parti au la. opposant la opposant la jusqu'à présent. ah mais ñoom Bamba lu mu ak ñoom lu ñu du benn Bamba de fulaak la am kenn du ko yàqal Medina Medina la tey Medina la suba waaaa Medina lay jaamu waaw ñoom nañ génn nday commune bi Bamba jàmm la woote Bamba jàmm la woote même lay daw li ay nit na dem wuyu moom kese bu nga fi indi coow ñun dañ taluñu ay coow waa Dakar dañ sonn ci coow yi taluñu ay coow yow yaa woote appel bu lu indi ay nit yow kese dama nga wuy ji jàmm salaam après nga dem ñibbi et le problème c'est fini ah lan mooy ah. mu nekk nii dañu war woote jàmm. moi je crois que nous sommes en démocratie la démocratie aussi a des exigences. moi je crois que comme par exemple léegi lii yoon la affaire justice la Barthélemy on l'a convoqué mais na dem wuy ba xam lan lañ koy wax. Sénégalais dañoo jàpp ne convocation bi acharnement politique rek la. mais est ce que léegi yow Barthélemy convoqué woon ko avant élection di jot yooyu. ñoom xamoon nañu avant le novembre Barthélemy Dias dina bokk ñii nga xam ne ñoo war a jël ville de Dakar. non loolu kenn xamu ko woon parce que c' était pas sûr même coalition bi mu bokk sax xamuñu ko woon. Oh. au dernier moment la ñu xam ne euh, Barthélemy Dias war na nekk candidat. donc je crois commune jàmmari lañ bëgg nañ et puis xam nga dugg ci biir marché ni comme ça policier taxaw armé wu ni war dóoru ay grenade loolu aussi dañu war a sàmm loolu parce que bu ñu feneen ñun d'accord nañu kenn ku nekk sañ ñaxtu seet kenn ku nekk sañ def loo neex mais ñu def ko exprès ñu dugg ci biir marché bi ñu sànni fi grenade marché bi tàkk ak nga xam ne moo fi nekk ay milliards nekk fi war a yàqu loolu la ñu bañ ñun en tout ñun li ñu fas yéene def mooy taxaw aar suñu marché aar suñu alal la ñu fas yéene def mais li ci des nag suñu yoon nekku ci ñoom bu yeboo Barthélemy bi mars ginnaaw suba bu yeboo opposition mars ginnaaw suba mais mais kii économique nañ ko moytu parce que Auchan yi li ñu leen defoon moo yee ba nga xamante ni bëggatuñu lu mel di amaat fii donc loolu rek la ñun waxuñu ko pour contre Barthélemy waxuñu ko pour contre Sonko waxuñu ko pour contre kenn man maay délégué marché bi mais maa ngi tudd góor gi Diop maay délégué marché Tilène mais lu ñu bëgg rek ñoom nañ ñu musal ci marché bi aar lañu marché bi parce que suñu doom lañ suñu yarbaat lañu kon waruñ ñoo dugg si biir marché bi nii ànd a un attroupement comme ça ñu si biir ñun ñooy subir les conséquences kon loolu aussi dañ ko war a marché bi euh, non loin de de de Ibama Ibama bu nekk Médina waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñu dëkk si marché bi délégué de marché bi ak ñi nekk si marché bi dañoo génn euh, di kaas ne ñii di manifestants manifestants yi buñ dugg seeni marché bi pour yàqal leen économie bi euh, si marché bi la la la la basé wu marché bi xaalis moo fi nekk te di leen daloon si euh, jamonoy Ousmane Sonko nga xam ne yàqoon nañ ay Auchan loolu la ñuy bañ mu dal leen ba nga xam ne am na ñoo xam ne jot nañ fi saagante am na ñoo xam ne jot nañ fi jàppante am na ñoo xam ne ngi fi euh, ñu ngi fi wax la nga xam ne wax dëgg neex yàlla ñoom ñii dañoo ñëw pour défendre Sénégal ñii ne dañuy défendre seen marché.